bu ñu ko doon xayma ci wàllu koom ci réew mi li muy peese dina diis lool lii ngeen di gis nii ak ñii ngeen di seen nii kenn ku ci nekk di yuuxu di siiwal sam njaay am mbedd la bu ngeen déggee ñuy wax quartier Touba 28 mbedd mii moo tax ndax lii ngeen di seen nii vingt la tàmbale ci station vingt bi ba fa marché ba yem ci penku ñu tali ko tey fii may wax ak yéen boo fi bëggoon a jaar tey dangay puuxante mbedd mii ngeen di gis nag moo xëy takk jëppët une heure du matin lakkaale mbooleem ay centres commerciaux yoo xam ne nii ñoo ko féete woon ndeyjoor ak càmmoñ lakk gi metti lool waaye bettewul espace bu bët xaj ñu jàpp ne war nañ faa def dara moo xam puus-puus lay doon moo xam taabalu dénk lay doon moo xam mbaarum seng lay doon courant bi doog a dellu ñu di ko jokkale ci anam woo xam ne jaaduwul ñépp xamoon nañ ne marché bi mën naa xëy tàkk waaye lii fi am bettul kenn te xamoon nañ ne it bés buy am dina metti lool ndax kat ay milliards tàkk na fi te lakk gi yàgg na lool ndax yoon jafe na bouche d'incendie amu fa moo tax mu fanaanee tàkk yendoowaat tàkk te lépp mu ngi bàyyeekoo ci xàll wu yaatu wi ñu duppee vingt 28 te ñu tàncaloo fi ba mu mujj jur lu mel nii. bi muy lakk nag centre commercial yi ko wër yëpp jàpp na ay bokki taaliba neewoon fa gis ngeen nii nga xam ne noonu lañ fi doon yëngoo laataa lakk gi bi mu lakkee ba noppi nii la mujjee te mbokk yi xam ngeen ne jëye yii di xew. sénégalais ñaare duñ ci jàngee dara ndax fii may waxee ak yéen mbedd mi delloowaat nañu ko ca namu mu meloon nañu ñaan yàlla la xewoon bañ a xewaat Touba ca kanam nag ni ñu ko baaxoo di def am nañ ci xalaat am nañ ci gis-gis am nañ yéene présenté ko askan wi yëpp bu ñu ci déggoo ñu fexe ba indi fi loo xam ne dana dox sunu diggante ak yu mel nii ndax kat marché bi dañ ko war a sécuriser waaye xel daf cee war a dal ndax li ëpp ci alalu région bi fii la concentré wu ci biir marché Ocass xoddeeku bala nga lakkale te xoddi ko baa ngi nii lilaahi baabaat misras mi abijaayi xayri ma nabaat wajal ilaahi maskani tuubaabaat misla ismi abijaahi xayri man nabaat wasalli an alayhi Touba ca kanam nag am nañ ci solution ndax mbedd mi 28 mètres la buntu magasin ak buntu centre commercial bu ne dañu fay bàyyi juróomi mètre def cantine bu 1 mètre bu jàkkaarloo ak magasin def cantine bu 1 mètre 50 mu jàkkaarloo ak tali bi diggante cantine boobu ak tali ñu bàyyi fa ñaari wet ñaari wet yépp nag boo ko jëfandikoo noonu talibi dina des juróom-ñetti mètre ñu barrière ko ba nit ñi mën di dem ak di dikk ba ci oto yi sax di fa mën di jaar di dem ak dikk cantine yi nag par bloc de quatre cantines lañu koy def seen diggante dina des espace boo xam ne ni nit ña dañ cay mën di dem ak di dikk di mën a gisit magasin yi nga xam ne ni ñoo féete ci gannaaw lii lépp nag conception bi bàyyi na xel toilette yi bàyyi na xel cet gi bàyyi na xel ba ñi fay yëngu kenn ku ci nekk yem fa nga war a yem ci gàttal daal lu méngoo ak jamono lu méngook dëkk bu sell bi di tuubaa lii nag mooy yéeney Touba ca kanam ci marché buñ ci amee ndigalal sëriñ fas yéene ko ànd ak mboolem acteurs yi dooree ci commune bi nga xam ne ñoo yore marché yi sous-préfet bi fi nekkal état bi association commerçant yi lu mel ni assise ak ambulant yi délégué de marché yi ak mbooleem ñu yore centre commerciaux yi ak képp kuy bonne volonté te bëgg lu baax ñor la te nga nekk ci dëkk bu sell bi di Touba bàyyiwuñ kenn wajalu rabbi min nanan mu ajjala jaalibatan min nanan mu ajjala yaa xayu yaa xayooba kulli ya mujib anta almujib walkarim walxarim ilayka waadaka farartu min siwaak فكن بساك خالدي إلى هداك وليكن ربا وليا والنصير ولجميع المسلمين يا بصير وكسرا خيرات يا صلب الذي ورزقه والشفيع عنك دين ولتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا عكيم ونجنا من سر هذا السمني wa sari xayri wa kulli fitani